ne la boo yow <laughs> bés bu ma la jàppee ah dinaa la écraser ok dinaa la écraser ñu ne non kii tentative de de crime la doon bëgg a def tentative de crime man maa ne booy ma la jàppee est-ce que c'est vrai que man bu ma la jàppee dama lay rey léegi ñu yóbbu ma ne ma yow tentative de crime nga ne lu tax nga waa ne nga booy bi boo ko jàppee bés boo boo ko jàppee Hmm? Euh, dina xam ni lu yàlla bi yàlla yàlla yàlla dëgg la donc tentative de tentative de crime la donc amul fenn fu am visa amul fenn fu ñu tante fu ñu boo xam ne ñoom justice am nañ bu buñ téye palpable que ñii dañ doon tante tel ak tel lépp nag machination gouvernementale la boo xam ne Dame Dieng moo nekk derrière directeur de Leral point net et de Leral TV ak kii ñu naan maître El Hadj Diouf parce que maître El Hadj Diouf bu leen fàtte dafa jàppal daan dafa jàppal daan kilifa seen dernier sotti kilifa da ko écrasé maître El Hadj dafa nekkoon ku rëy làmmiñ bëri wax ñëpp ragal ko làmmiñam la yor di ratatati xam nga Sénégal boo rëyee làmmiñu ne kii borom xam-xam la Dame Ndoye Euh, moo ko jàpp fii écrasé ko devant tout monde kilifa ñëw doggali ko loolu da ko metti da ko metti en boobu da ko amal kilifa en bu am ci kilifa en boobu la am ci Ousmane Sonko il faut ngeen xam ni kilifa tam dafa nekk di sibiir en ñoom bu am ci Ousmane Sonko parce que gis nañ kilifa. approche bu mu am ak Sonko ba jouru tabaski sax Ousmane Sonko ci moom la jëndee xar ñëpp gis nañ kilifa ak Ousmane Sonko sincèrement kenn mënu ko nëbbu ko kilifa nëbbu ko ak Pastef gu mu am ci Ousmane Sonko adduna yëpp ko xam te gouvernement bi buñ la enelee rawatina na nga jege Ousmane Sonko kooku moom mooy comme jot jotuñu ci Ousmane Sonko foog ñu jot ku jot Ousmane Sonko. Youssou Ndour sax woy na ko jéem-jéem jotu la day jéem a xool ku ku la gën a jege mu jaaree fa ba yàqal la nee na jéem-jéem jotu la day dina a xool ku la gën a jege ba mu jaaree fa ba yàqal la donc comme ñoom jéem nañ lu ne ci Ousmane Sonko peuple bi fépp mu dëgër ci ñoom metti na leen trop nag le fekk ñu bëgg a buddi waa ji noq ci kaso bi mu tëleen dañuy xool ku leen gën a ku gën a jege ki ko jege gis nañ Ousmane Sonko ak kilifa et tout ça nekk ànd kaf ree mu jënd xaram tabaski mu am na confiance ci moom am na fu ñu toll ñoom ñaar ñu jàpp Ousmane Sonko génn ñoom kilifa dem seeti ko ci saalam toog ak moom kaf donc affaire boobu tamit am na en rawatina nag ay ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne ay élément wu Ousmane Sonko lañ écrasé El Hadj Diouf daam moo njëkk a rajaxe El Hadj maître a Hadj Diouf daam moo ko njëkk a par zéro El Hadj Diouf mel ni ku dof parce que da doon paqueté nit ci ay waxi dof taf taf mu paqueté la rëy làmmiñ gaa yi nga nekk fa xam nga boo yolomalee mais daam la njëkk a dajal ci télé daam rajaxe ko bum El Hadj Diouf di saf puub mu ñëwati kilifa doggali ko kan ak en bu mu amoon ci Ousmane Sonko moom xam na ni dee na yàq nañ ko fini. kooku bu demee ba tey jii nekk ci justice bi ñëpp xam par parloom ak Macky Sall mu dem jàpp kenn ci ñooñu mu yaakaar ni Pastef la booy Pastef yooyu muy wax noonu haine boobu mu am mais ils vont déverser toute leur haine ci kilifa ak ndax haine guñ am ci Ousmane Sonko ak lañ buggoon jàpp Ousmane Sonko lañ ko bëggoon jotee te mënuñu ko koo jotee loolu daf leen metti ba suñ joon yàlla tey donc tuumaal gi ñu jël ci biir parce que justice mënul fiiwu rek ci ño yéen toog ngeen ci biir oto di wax toog ngeen ci biir oto di wax mënoo cee ñëw di jox ñëpp ay chef d'inculpation bon toog ngeen ci oto bi nee ngeen da ngeen di lijjanti ay visa pum tentative de lijjanti visa pum toog ngeen ci biir oto bi nee ngeen di ngeen di ngeen di nga ko monter ay dossier un ku wax nga ko da nga koy ay dossier tentative de monter ay dossier bon toog ngeen ci biir oto bi nee nga après euh, même passeport diplomatique donc am na pa kon passeport diplomatique am na ci tentative de falsification passeport diplomatique ok euh, yow nee nga ci oto bi sax bu nga xiifee nee nga ko ma man ma tux donc euh, est-ce que est que cigarette la woon est-ce que du yamba tentative de kii wala yamba nga doon use mais ban justice mooy doxee noonu. toog ngeen ci oto bi nee ngeen lii kon preuve la nee ngeen lee kon preuve la wax ngeen fii kon preuve nga wax ngeen fee kon preuve nga lépp tentative falsification euh, détournement trafic ban justice mooy doxee noonu <laughs> wax leen ma ban justice mooy doxee noonu donc kon ñun seen justice dafa bëgg a wax ni bu la bëggee jàpp lépp fa nga toogoon la nga doon wax lépp ay délit la lépp ay délit la ñu jël la ko gàcc la ko tentative de waxtaan tentative bu ngay tox cigarette ba nga naan eh ma ma ma tox fii wala ma génn kon est du yamba donc tentative peut être xëy de pare woon ci cigarette bi xëy na yamba ngay tox donc tentative kon tentative bu nga nee bu nga nee di nga ko lijjantil donc tentative bu ngay kon tentative tentative la. ah waa ji da nga ko bëggoon yóbbu kon da nga bëggoon yóbbu ay immigrant ay kon tentative de euh, euh, de euh, transfert d'immigration tentative de. <laughs> jënd dix cinq chef d'inculpation gàcc leen jël leen ñi ay kilifa ñi ay borom kër ku ci nekk ci ñoom am soxna am ay xale ay doom ñi ñi ne daññet seeni baay jël sànni ci kaso tuumaal leen taqal leen fenal leen pour écraser leen parce que en bu ñu am ci ñoom kooku képp ku ko seetaan gore woo te gis nga naqaru doomu aadama boo ko reyee bàyyil xel balaa ngaa dee ñu ree la sa naqar dinañ ko ree ndax ñu ne ak nit deele nga ree yàgg-yàgg di deele xool leen dund doomu aadama yi di caaxaane doo dund doomu aadama bu ñu jaay doole bu ñu sosal bu ñu fenal te ba léegi justice amul benn kayit bu mu téye lépp ay tentative la nekk sama biir xel ak la may wax est-ce que mun nga xam lan moo ci tentative c'est pas damaa wax rek kon tentative la lan sama biir xel mun na bañ a bokk sax la may wax mais yow mun nga ñëw ma ne la waa boy fils boy fils bugg naa visa de wala waa boy poteau ñëw ne ma boy bugg naa ne mun naa la ko lijjantil ñu may enregistré man mun naa la ko lijjantil waaye xoolal amul problème nga jox ma cinq million nga jox ma 5 millions mais li may wax noonu. du loolu laay jéem sama tentative mooy jéem a lekk say 5 millions pourtant dans ma sama tentative mi ngi sama biir bopp qui n'a absolument rien à voir ak la may wax nit lu muy def ak la muy wax mun nañ wute góor day ñëw fekk gel wéy nu ma la bëggee dama la nopp c'est man booy xoolal boo nekkoon fleur ma arrosé la ak limonade c'est man booy xoolal man booy yow nu ma la bëggee ma dama la gis say démarche mais fekk tentative bi yëpp mooy tëddee tëddee ko tentative bi yëpp mooy foowee ko mais est-ce que li muy wax non bu ma la jëlee naa la def princesse mondiale xoolal dinaa la lalal tapis rouge xoolal dina pourtant la muy wax ak tentative am bokkuñu dara tentative yëpp mooy bës jot mu futti ko ba mu set wecc jaar ci kawam est-ce que kon dañ ko war a juger ci la mu doon wax te yu bokkul ak dara tentative bu nekk ci biir boppam donc loolu kenn mënu cee jël ay nit dóor ay chef d'inculpation boo yorul benn këyit benn preuve am na wax ni nañ ci visa tentative wala falsification wala trafic te visa amu ci te visa amu ci